tey dañu ñëwoon fii ci permanence APR pour def suñu dernier dépôt liste parrain yi nga xam ni mouvement Dolil Macky collecté na ko wax naa sànq ni boo boolee li nga xam ni moom la ñu am comme parrainage te déposé ko fii au niveau de la permanence ñun suñu mouvement ñu ngi ci 6040 parrains yoo xam ni yàlla dimbil nañu ba ñu mën leen a mobiliser ñu parrainer pour le président Macky Sall. juróom-benni junni ak ñeent fukk. juróom-benni junni waaye yaa ma gën dégg wolof juróom-benni junni ak ñeen fukki nit fexe nañ ba mobiliser leen pour ñu signer ni d'accord nañu pour que Macky Sall nekk candidat. dama jàpp ni nag képp koo waxal ba mu nangu signer la ci këyit ni d'accord naa Macky Sall nekk boo waxee ak moom dina d'accord ak yow pour que mu woteel Macky Sall loolu mu am solo ci opération parrainage maanaam daf ñuy permettre bu ñu ci campagne bi bu ñu yemee rek ci ñi nga xam ni wax nañu ak ñoom ba Macky Sall c'est sûr que Macky Sall dafay gagner la commune de Thiès et l'enjeu pour nous c'est ça Faire ba président Macky Sall enfin gagner la commune de Thiès te bu analyser résultat bi nga xam ni la obtenir tàmbale ko ci ñom Siré Dia dem ak les autres responsables ak ñun ñi ak yenen président de mouvement yi vraiment li ñu mëna a mobiliser ci ay parrain bu ñu fexé ba ñu nek ay électeurs c'est sûr que président Macky Sall dina gagner commune Thiès un enjeu bi am solo pour ñun lolu la évidemment l'enjeu premier c'est que le président Macky Sall passe au premier tour mais ñun nous allons koy traduire nous ñu fexé ba fi à Thiès le président puisse vraiment gagner les élections mu dégg fi wii ci commune bi xex bi jeex nak opération parrainage bu mu une fin en soi manam bu mu doon loo objectif la buñ ñu doon fixé rek jot ko rek daal di tëdd ci sunuy laurier wax ni liggéey bi jeex na déedéet waruñ ci naagu dañoo wara japp ni départ la pour ñun pour que ñu jaar fa mëna continuer mobilisation bi fexé ba ñi nga xamni ñoo parrainé Macky Sall le 24 février ñu wan ko hôtel. te yaakaar naa loolu war na parce que nit ki nag boo waxee ak mom ba mu d'accord signé ci keuyit né nangu Macky Sall ne candidat koku bo waxaté ak mom dina ànd ak yow ngeen dem ci urne mu wooteel président Macky Sall loolu moy importance liguey parrainage bi ñu gissé ko noonu jappé ko noonu sank ci kalamay tubaab félicité à sama mag Siré Dia parce que gis na liguey bu am solo bi mu def au niveau du territoire sénégalais yemul rek Thiès Thiès amna 80 et quelques mille mais euh, boo boolee li mu am yépp vraiment ëpp na 100 mille euh, am na quelque part sax ku may tooñ na ko Dia à lui seul euh, liguey na liguey bo xam ben département lëm lañ ko confié won amna département yo xamni amuñu lolu euh bon il faut pas avoir la fine bouche aussi nit bu défé lu baax ci liguey da nga ko war a ni ko wara encourager non noonu lañ encourager. a Ablaye djey ak ñeneen ak ñeneen yi nga xamni ni ñu ngi xaar seen tank toubay pour faire ba président Macky Sall am ndam fi dans la commune de Thiès parce que loolu mënu tax euh buñu am ay calcul pour les locales localiser après nañu focaliser wu ci élection présidentielle ñun ñëpp ñu mëna bolé suñu doolé moytu li nga xam def ñuy séparer gëna dëgeural li nga xamni moñu bolé pour que Macky Sall mëna am ndam aujourd'hui nous sommes venus déposer le dernier gros lot euh, d'un montant de 2800 et quelques parrains. Et si on fait le décompte, euh, le mouvement Dolil Maki actuellement est à 6040 parrains. Euh, ce travail a été obtenu grâce au soutien, à la participation active de l'ensemble des responsables du mouvement Dolil Maki, aussi bien dans le département de Thiès que dans le département de Mbour. Notre mouvement, c'est un mouvement régional qui a même une dimension nationale, mais nous sommes focalisés sur la région de Thiès, essentiellement au niveau des deux départements de Thiès et de Mou. Donc euh, ce résultat, nous l'avons obtenu, comme je disais tout à l'heure, grâce vraiment à la participation de l'ensemble des responsables du mouvement euh, d'Olil Maki. Aujourd'hui, c'est euh, un bilan que nous faisons. Nous présentons ce résultat à l'ensemble des, Sénégalais pour dire que vraiment le mouvement d'Olil Maki a autant que faire, autant faire, autant que faire se peut, essayer de, jouer, de jouer sa partition et de participer, disons, à l'opération de massification au profit du candidat Macky Sall. Car en réalité, les opérations de parrainage doivent être considérées comme un instrument et non comme une fin en interne à mon avis, euh, un résultat qu'il faut brandir pour euh, euh, vraiment se glorifier d'avoir fait un travail important. Non, c'est un instrument pour participer à la massification, à la mobilisation. Moi, j'ai l'habitude de dire que ce qui est important dans ces opérations de parrainage, c'est au moins d'avoir une cible bien déterminée pour qu'au niveau de la campagne, qu'on puisse aller visiter ces gens-là. Et chaque responsable doit faire en sorte que l'ensemble des parrains qu'il a pu mobiliser, qu'il les transforme en électeurs. Et c'est ça qui est important. C'est vrai que le président, à travers les résultats, des parrainages à un instrument pour mesurer un peu le degré de représentativité plus ou moins des responsables, mais malheureusement, il n'aura pas ce même instrument à l'occasion des élections. Il pourra pas euh, connaître le taux de participation de chaque responsable quant à la mobilisation des, des électeurs. Mais ce qui est important dans tout cela, et ce qu'on doit retenir, c'est que si la coalition Beno Bokyakar parvient à mobiliser autant de parrains, nous pouvons avoir l'espoir qu'au moment des élections, vraiment ces opérations de parrainage qui sont réussies au niveau du département, il faut le reconnaître. Et je profite de l'occasion d'ailleurs pour féliciter euh, notre grand frère Sireja qui, euh, au niveau national, je peux le dire, hein, a pratiquement remporté la palme au niveau de la mobilisation des parrains. Je peux également féliciter mon jeune frère Abdoulaye qui a fait un travail important aussi au niveau des opérations de parrainage. Mais l'ensemble des responsables, les présidents de mouvement, vraiment se sont mobilisés pour que Thiès ne soit pas en reste. Et c'est ça qui est important. Thiès a largement dépassé les objectifs qui lui étaient assignés. Cela veut dire en clair que si on continue ce travail-là, les élections euh, seront gagnées à Thiès par le président Macky Sall à coup sûr.